Ah, jërë ngeen jëf mbokku internet waa Actubuzz ñu amati mbégte ak kontaante su ne ñaan li ne demee ne nag ñu dalal tey ki nga xamante mooy sëñ Cissé sëñ Cissé naa la ndaanaan la ndaanaanu ndaanaan yi kii nga xamante ne tey moom sëñ Cissé bokk na ci ñoo xamante ne tey boo xoolee sax image am bëri di génn lu bëree bëri ci internet bi xam nga mais nit la koo xamante ne tey nit ku baax la ah di ko tamit yàlla a a baax parce que nañ la réew mi Sénégal effort yi muy def ci li nga xamante ne mooy réew mi ak ñaan yi nga xamante ne mu ngi koy def tamit ci réew mi am na daal njëriñ lool ci réew mi moo tax yàlla ko fi yàlla bàyyi ay ñaanam tamit di gën di saawaan baawaan dañ koy bàyyi nag mu présenté ak mbokk internet ñi nga xamante ne tey ñooy Actubuzz ñu fas yéene waxtaan ak seen sujet tey ci lu baree baree bari tey li xew ci jamono ak lu baree baree xam tamit jamono ji mu ngi am ci réew mi di Sénégal parce que nit la ko xamante ne lépp loo xamante gis na ko lu war a ñëw ci réew mi da ciy taxaw def ci lépp loo xamante mën na ko ci ak képp lay kàttanam ne nag di ko ñaanal ne nag ku jar a bàyyi xel la parce que nit ku baax la sëñ Cissé ñu ngi lay nuyu aouzu billahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim la hawla wala quwata di nuyu nuyoo bi di ko jiital ci Serigne Mountakha Bassirou yàlla yàggal ko fi lool te mu wér Mbàkke baal noonu leen def di ñaanal tarex yëpp Tiijaan Xaadir Laay ñeseen ñëpp ñoo ngi leen di ñaanal di ñaanal waa bitim réew gépp nga xam ne tey jii nii ñoom ñoo bàyyi seeni i mbokk bàyyi seen waajur ak seeni doom ak seen yaay ñëpp dem daani doole yal na leen yàlla defalaat jàmm ba ñëwaat jàmm ci seenim réew ci barke Seydina Muhammad di ñaanal askan wépp jàmm waaleykum salaam Ah, jërëjëf sëñ Cissé kàddu yooyu am na solo lool lool lool lool lool di ñaanal mbokki bitim réew yi ñoo ñu jaar ñaan lañ sëñ Cissé jamono ji mooy waa bitim réew gis nañ ji li nga xamante ne moo am ci eh, eh, mooy coow li fa am yi fa am lan ngay wax foofu ñi nga ne doomu Sénégal yi nekk waaw daanaka li ñu wax moom mooy daanaka ay du yam ci boppu boroom te wante nag eh, liñ leen di mën a wax mooy ñaari réew yi am problème yëpp ay doomi sénégalais fa yàlla chaque jour rek buñ jullee ak ak bu nu wooree yëpp rek lu nekk ci lu baax rek dañu ñaanal ñaar réew yëpp am jàmm ndax jàmm mooy li gën ci ñëpp ndax ñaar réew bu nu amee jàmm Sénégal ak fépp ay am jàmm bu ñàkkee jàmm nag ñëpp ñàkk jàmm ndax réew mu ne say doomam fa yaakaar naa kon nag dañ leen di ñaanal jàmm yàlla def eh, wis sa ndox mu sedd te incha allah bu neexee yàlla sax suñu borom dana fa wis ndox mu sedd ba liñ ci yaakaaral lépp suñ borom dana def lépp teere ci jàmm ak salaam incha allah. jafe gi lan la parce que mbokk internet tous dañuy a jafe jot lan la jafe yi. waaw abu ñun de ay taalibi lan rek. ba nekkee ay julli da pare dana walbati ko nekk taalibeeb sëñ Tuubaa bokk ci keppaaru sëñ Tuubaa dëgg la sax jafe woon sax ndax ñun moom daanaka boo ñëwee yëmbal la feneen danga may gis maa ngi ndaw ñuy ànd maa xale yi ñuy ànd kon jëfewu ma des fois nag dan may fekk foo xam ni euh, duma mën a wuyu téléphone wala leen ñu koy kalaame bari na wante tamit ak sant la daal wante ñoo ngi wax ni jëfewun ci jëfewun daal waaw xañ ne nag ñoom ñoo gis loolu waan ñoo ngi ciy jéggalu bu baax képp ku ma woo tamit dama lay wuy képp ku may ñaanal tamit dama lay dama lay faral di nemmeeku di la laaj say ñaan ba xam yaa ngi gis ak tan wala ak lan ak lan loolu lépp dama koy def incha xam nga dafa am loo xamante ne ci ci nga xamante mooy sénégalais yi parce que dafa ñu jënd jàppoo leen te yóbbatuñu seen xaalis fenn fu ñu dul gisee seen njëriñ boo gisee ñu topp la bëgg la dugal seen biir xol xëy na yàlla dénk na li nga xamante ne mooy seen njëriñ li ne ci yow te gis nañ tamit te yaa ngi koy wërsëgale li nga xamante ne mooy sénégalais yi sa digganteeg réew mi ñëpp la bëgg lan la waa abu daanaka nag am réew moom boo ci nekkee juddoo fa yoroo fa génnoo réew ma yaa ngi ci réew mi di xool luy doxal réew mi di xool tamit jàmmi réew mi yaakaar naa ku bëgg lu baax ku nekk dana la bëgg te man suñu borom dafa ma binde ma ma bëgg lu baax nag dëkk ci réew mi awma lu du Sénégal du ma nag kenn di xas Sénégal wala di wax leen Sénégal te war juddoo fi yaroo fi moom moo tax daal loolu tax nit ñi tamit bëgg la seen bopp te kenn nit ki la bëgg tamit euh, jar na kii ndax fay na fukki nit ñu la bañ mm-hmm. wante nag euh, mbëggeel googu ñoo ngi leen koy delloowaat di leen wax ni sans ñoom man duma dem ma ne sans man tamit ñoom duñ dem loolu moom mooy kii bi daal wante daal ñoo ngi ciy sant yàlla bu baax daal di ci sant sëriñ bu baax a baax. a ah, jërëjëf sëñ si xam naa ne foofu la ñuy daanale rek dugg ci li nga xamante ne mooy li xew si jamono ji jamono ji ñu gis xale yi nga xamante ne tey topp nañu réseaux sociaux yi bëgg li nga xamante ne mooy TikTok bi bu baax a baax a baax mais gis nañ fan yi ay dese yi gaaw ñu ngi ciy am bu am na xale bu jigéen bu dëkk yëmbal sama tur bi ma koy fàtte mu Koddu Fall Koddu moom dese bu gaaw. ci li nga xamante mooy TikTok bi lan moo indi loolu. waaw suñ suñu abu ñoo ngi lay siyaaraat baax daanaka nag boo xoolee loolu lépp kéemtaanu yàlla la rek. lépp tamit dogal bi yàlla la wante yàlla lu mu namm lu nekk rek kenn du mënta tee ba du am wante lam namm am na loo xam ni sabab mën na caa am. Mm-hmm. boo xoolee xale yi danoo attaqué euh, réseaux sociaux yi comme tey jii ni TikTok beeg YouTube beeg yow rawatina TikTok bi. Mm-hmm. TikTok bi wa waxan naa ko ci sorte yële jàll man leen. képp koo xam ni yaa ngi génne ci tiktok yi wala ci internet bi daal te amoo tuuti kaaraange mm. na la leer ne saw fan mën naa gàtt bu saw fan gàtt tamit say mbokk mën naan yàq sa xaalis seen xaalis ci yow ndax mën nga di tëdd feebar beneen bi bi topp mooy ni tax say mbokk mën a ñàkk seenu xaalis muy boo feebaree tey suba da ngay tane nga feebar ñaari fan suba nga tane mm. noonu la de ndax boo xoolee ca euh, tiktok bi lépp la boole sacrifice baa ngi mm. seytaane yaa ngi niti guddi yaa ngi fi ñi nga xam ne tey jii dañuy def lu bon ak ñiy def lu baax ñëpp fa àndandoo jaxasoo léegi nag loolu tey jii nii bu dee nag dafa nekk fenn yow chaque jour nga cay fes te amoo tuuti kaaraange suñ borom mën naa def yow nga dundi jafe-jafe te mag ñi daan nañ wax ni cat bu rey day seemal defaa nga gis cat nag goo xam ne tey jii nii mu rey moo gën mu seemal ndax bu la seemalee daanaka say mbokk dañuy mujj ba seeni xol sax dañuy bëgg nga gaañu ndax sonal gi nga leen sonal imagine toi yow cat jàpp la sëñ bi nga feebar feebaroon fi nga tëdd boo bëggee lekk dañ lay may boo bëggee saw dañ lay def loo bëgg dañ la koy defal loolu nga faatu moo ko gën léegi nag bu dee cat gi nag fi ñu koy kiyee muy TikTok bii boo xoolee soxna Codé Fall moom nga xam ni ndaw soo xam tey jii nii suñ borom daa def mu taaru lool. ànd bokk na ci ay mbiram boo ko xoolee ba ca biir biir bi da ngay xam ne lii cat la. Mm-hmm. ndax man dugg naa ci paas paasu TikTok am tey ci suba rek di ko xoolaat. wante maa ngi gis ndeysaan taar bi ko suñ borom may taar bi ko suñ borom may ma xam ne kii cat bokk na ci li ko yóbbu. te boo xoolee ak faatoom ni la koy misaale nii rek faatu gu yomb la ndax nit feebar na feebar boobu faatu ca. wante nag boo xoolee damay wax ni ndaw ñi nan wutiwaat kaaraange. du ma tàyyi di si wax danoo toll ci moment bii réew mi foo xam ne Sénégal gi bis boo amul kaaraange na la lenn sa benn tànk ngi armée li sa benn tànk ngi ci ay jafe-jafe waaw léegi nag kaaraange googu nag li la koy may danga nekk ndaw bëgg a jariñ say mbokk tey wala nga bëgg a jariñ sa famille tey jar na nga wut kaaraange kaaraange mooy li njëkk ci doomu aadama kon nag loolu Serigne Cissé loolu moo jar a ñaan kaaraange googu ngay wax noonu fi mu ne nii mooy li nga xam ne mooy lu yitte Sénégal yëpp parce que jamono ji toll ne nii tey xale nga fës ku ne bëgg yi ku nekk fi mu ne te gis na nag xale yi jamono ji dee yu gàtt yu ngi ciy am dañuy def ba ci kaaraange boo xoolee ja at mi ñu toll nii dafa nekkaat moo xam ne dana bëri ay ay ay ndaw rawatina ndaw yi jigéen hmm? yoo xam ne danañ ci faatu lool ba dana fa bari moom léegi nag li koy waral lépp lépp lépp muy ñàkk kaaraange gi ci la bokk donte dogal bi yàlla donte lépp dogal bi yàlla wante yàlla yàlla bay sa tool ndax man tey jii nii am na loo xam ni tey jii nii bu doon damay génn sama kër gi dara dal ma ma xam ne lii dara dana dal dinaa fànq ba loolu mën na maa kii mm-hmm. da gis koo xam ne nag du saraxe du def dara koo xam ne tey ji du ñaandu boo waxee mu ne gëw ma sëriñ def ma nangam te fekk na fu muy mujj tamit ci sëriñ lay mujj wala mu mujj ca jaag ba rek bu dee wàllum kaaraange boo xoolee abu nit ñi dana war di ñaandu mm-hmm. ndax kii boo fi du ñaanu sa waajur a ngi ñaanu bu sa waajur ñaanu sa maam a ngi ñaanu loolu moom xalaa ku la yàlla mënut a génn ci àddina ci jamono jii nii boo bëggee dem mm. dara du la fakkasal nga bëgg a dem ci yoonu rafet faaw nga jiital sa bopp ay kaaraange ñaanlu ndax des fois da ngay gis koo xam ne yoonam du nekk ci yow tey jii ni sa yoon du nekk ci moom teewul mu lay liggéey wala mu lay yéena lu bon loo xam ne moom te bët li ci am solo li ci bon ci bon ci bët mooy mm-hmm. yonent bi alayhi salaatu salaam daan daan dinaa ko doon na ko wax ci kii jàll yi danaa ko waxaat mm-hmm. mës naa sangu ba ba kii toilette ba rafet génnaat ñu catu ko ba lool ba mëntu def dara bi mu ñëwee nag ndeysaan mu tëdd mu tëdd benn dëkkandoom daal di ñëw ni ko ah yow gën gi mbindeef gi lan la mu ne ko man de dama génn fii ñëwaat mënaatuma dara hmm. ñu ko ah ci la kerek lay yàlla ni jibril jibril daal di ñëw indi saar wi nga xam te moom lañ defaree eh, cat muy way yaakaadu lazina kafaru kerek la ko jibril jàng tifli hmm. ko yonent bi yonent bi jóg keroog ci la yonent bi wax ni gëm naa ni sama waxeet ñett yi lan ñii bëta leen di topp ci àddina ba biir bàmmeel ñii làmbañ moo leen di topp ci àddina ba biir bàmmeel ñii nag coobare suñ borom la donte lépp coobare suñ borom kon xam nga yonent bi xam na ni jat am na ak bët donte mooy gën gi mu def waane lépp boo ko suñ borom def da koy jàngal ni ko say njoñ lii la dal mën na leen a dal ñoom ñëpp te xam nga tamit yonent bi suñu borom bind ko pour ay liggéey di ko jàppala naam gis nga bon koy liggéey kerek dañ kaa liggéey def ko ci teen kon xam nga ni kon yone yàlla mi ngi won foofu ni yonent bi nga xam ne mooy suñu royukaay yàlla mi ngi won foofu ni sa seeni ñooñ man na li lépp lu ma teg yonent bi rek mën na leen a dal léegi nag loolu moom moo tax moo tax jamono jii képp koo xam ne yaa ngi yëngu danga war a am gàllaaj beneen bi coob mooy cat baaxul chaque fois ma ne abu cat moo gën a bon liggéey ndax liggéey mën na laa dal nga dem ñaan lu ji tey jii ni ma jox la sama ñaari bitéeli nga sangoo ko liggéey bu la fekk ci yow mu deñ wante nag bu demee ba yàgg ci yow mooy waral nga um ràpp moog liggéey danoo bokk te boo te euh, bokk ay siiñ te bokkuñu ndax cat bu ëppee ci yow day dem ba tëj la ràpp nit ñi da nga dem ba soof leen mm-hmm. sa am di jàmm yi nga xam ne dañ naa waran di dimbali dañuy dem ba mujj gi dan lay daw loo laal day yàqu mm-hmm. loo yaakaar lu nekk day tas mm-hmm. ngay faral di jàmbat yaram buy tàng di faral di jàmbat digg ginnaaw guy tàng say côté yëpp di tàng loolu lépp day waral dem ba cat lu ëpp day nekk ci jaa ja faral di la def xeeti métti du kon cat bu ëppee ci yow baaxul man nee naa man liggéey moom ma gënal cat ndax liggéey bu ma ko kiyeen léegi mën naa kaa kii léegi mu toj wante cat moom bu ëppee ci yow baaxut waaw kon nag damay wax ndaw ñi nan gën a fonkaat seen bopp gën a fonkaat seen bopp te xam ne ñun ñooy yori réew mi ëllëg kon nag bu buñ sàgganee suñu bopp ndax yàlla moo ñu teral te moom moo ñu tàgg ci alxuraan mm-hmm. kon nag bu buñ sàggan suñu bopp ñu gën a wut suñu bopp ay kaaraange gën a bu ci suñu bopp ay muslaay ndax ku nekk say waajur yow la yaakaar wante réew mi boo ci bëggee dund Sénégal te amoo kaaraange na la leen ci jafe-jafe wala nga gàttu fan rek jërëjëf sëñ Cissé ci loolu la ñuy dugg léegi ci mbirum li nga xamante mooy mbirum cat gis nañ ah, ñaari butéel yi nga xamante ne tey mbirum cat moom xam naa ne moom loolu moom Sénégal nangu nañ ne nit yàlla am na lu yàlla am na lu la ci dénk tey liggéey bi liggéey bu mu doon pour ñi nga xamante ne tey jamono ji cat sonal na leen wala am liggéey bu nekk seen yaram waaw daanaka nag ñaari bureau yi dama ko da ngeen cee tombe rek ma teg ko nii wante nekkoo ci kii sax wante boo xoolee tamit ah, ay mbir la daal mm-hmm. ndax boo xoolee yii moom pour wàllum toj liggéey la wante cat moom mm-hmm. am naa ci yoo xam ne incha allah bu ma la ko liggéeyalee dana ànd ak ay dég dégg te dég yi muy àndal muy garabuk sump garabuk sump goo xam ne tey jii ci yoon lay aw yoon lay tiim xam nga loolu boo génnee ci àll bi nga koy gis buñ na ko boolelee jox la ko nag ba sangoo ko moom cet lu nekk ci suñu borom dana def mu wàcc te cet tamit du la gaawatee yéeg te li may wax chaque jour ma ne nit ki bul sangoo benn bidéel rek cat rek nga ni bàyyi naa. ndax man ngaa sangu génnaat ñu cataat ñu catuwaat la léegi liy problème bi mooy da ngay dëkk di sangu yor sa salle de bain chaque jour ngay dugg di sangu chaque jour ngay dugg di sangu te nii ni boo sañse woon tey jii ni rafet lool ta car macha allah nga génnaat fii ñu cat la. Mhm. boo demee xew ba ñëw war ngaa duggaat sangoor wàcc waat waxe nit ñi. léegi nag loolu moom mooy kii ja am na yoo xam ne Sëñ Tuubaa daan na ko wax. Mhm. yoo xam ne tey jii ne boo ko bindee boole kaak indee ak cin lu bees seggee ko ko léegi saafara si wàcc ci biir eh, ci kaw inde bi di wàcc ci biir cin li mm. nga lañ ci hôpital ba boo ko sangoo loolu moom tàggoo ngoog tàggoo nga moom moom mm. waaw yooyu moom cat moom am nañ ci am solo yoo xam ne moom yi ni defaral suñu bopp yoo xam ne ku ñëw daanaan la ko defaral insha allah waaw ma loolu loolu sëñ bu baax rek ko mën li may defar sama bopp boo ñëw ma liggéey la ko defaral la ko mais sëñ Cissé ñu duggaat tout léegi ba léegi tamit ci mbirum li nga xamante ne xam naa ne cat a koy indi ak liggéey xale jigéen ñu bari jamono ji seen sëy yëpp am nañ problème xale bu jigéen boo gis sëyam day am problème mais da gis jamono ji ku ñuy takk ay millions yi bari nga ciy dégg may nañ jiw 11 millions 13 millions millions yi ñoo waral sëy yi di tas wala xale jigéen ñoo sëyatul parce que toujours da nga gis seen sëy di am problème lan la waaw million yi bari moom jigéen yàllaa ko teral jigéen nga takk ko may ko àddina ak li ci biiram tamit taxul nga mën kaa fay ndax jigéen moo jur suñu yaay contre naa yooyu noonu ay mag ñu njëkk ñi la woon rek ay juróom benn fukki dara mag ñaat téeméer yooyu ay kii la wante jamono daa changé jigéen loo ko mën a defal ci lu baax defal ko ci mhm. wante boo xoolee nag parfois nga digganteeg jigéen mu leer ne kii dafa bëgg a sëy wante boo xoolee yaay ko góor ki moo ko dul may mu sëy mhm. parfois nga dem takk koo xam ne du sa mbokk say mbokk bëgg la sa sa mbokk léegi nag loolu amul yow nga dem bëgg mbokki jàmbur bu ñëwee dañ koy xeex mhm. léegi nag di ko bund xadaal ci ci kër gi di ko teg ay liggéey yi ñuy génn di yàq deram yooyu yëpp da nga koy gis ci kii daanaka damay am kaa yu mel noonu wante ma la mën a xamal mooy képp koo xam ne daal sa sëy yëngu na mm-hmm. jigéen gi muy góor gi mm-hmm. incha allah boo ci dégganteeg man incha allah dinaa la dinaa la ko tegaat ci ci condition mm-hmm. ba tegaatal la sa sëy nga dellu fa jàmm bu dee nag loo xam ne dama lay protéger ba tey jii nii say say goro wala say njëkke wala say nangam ñu lay buntu xataal incha bu neexee yàlla kenn du la buntu xataal te képp ku la ko nar a defati lu mu la teg lu nekk dana dina demaat ci moom waaw loolu moom am naa ci yu am solo yoo xam ne moom képp koo xam ne liggéeyal nañ la ko rek ci kàttanu ak yàlla incha allah bu neex yàlla danga am sa sëy ci jàmm ndax boo xoolee ah jigéen ñi bëgg na noo sëy jigéen ñi bëgg na noo ndax koo ci wax ku nekk jëkkër laa bëgg rek la la wax parfois nag da ngay gis jigéen jóge cib sëyam ngir ak xamadi wala ak ak kii waaye nag parfois nga gis jigéen jóge cib sëyam ngir lan xeex bu metti ñàkki mbokk parfois nga gis jigéen koo xam waajuróom bu góor day gaañu waajuróom jigéen day gaañ amul kenn koo ko taxaw ay magam lay am saa bu demee ca magee dan naa ko góorgóorlu nangam nangam te fekk na am na lu war a jiitu góorgóorlu ba bari na fi wante daal lu ma la mën a wax daal képp koo xam ne suñu borom def na la nga am natt boobu incha allah boo jokkoo siñ siise dina la ci dimbali dana la ci taxaw ci kàttanu yàlla waaw muy góor gum dal tamit ndax bari na góor ñoo xam ñoo ngi bëgg soxna wante kun am ku nekk say waajur génn la wala say say rakk yu jigéen wala say rakk yu góor fexe ba kooku demaat wante ku ci bëgg ku nekk rek boo ma wooye incha allah bu neexee yàlla dinaa la ci teg ci programme boo xam ne bu neexee yàlla lépp dana saafaru incha allah wante sëy daal at mi moom daa gën a tàng lool boo xoolee sëy yi tas ci jamono ji moom daa bari moom laay waxan ca émission yi ma ni sëy boo fi takk fi ni nii na nga ci jiital ay ñaan ndax boo ci waaw ci ñaan ñaan lay mujjee mooy da nga dem ñaanlu wàjj wala nit ñi ñaanlu sa diggante kooku tas kon nag da ngay teel a ñaanlu ci sëy bi mm. boo ko seetee ba pare te nit ñi li dul kii mooy da ngay gis fii dakaar ñoo xam ne dañuy dugg ci sëy dun ko xool mm-hmm. uh, bu yoggul am naa ci kaa boo xam ne Cees la waa ji dëkk dafa ma woo ñi ma damay bëgganteeg diw ak diw ak diw ma ne ko yónnee ma tur mu yónnee ma ko ma seetal ko ko ma ne ko sëy bi mm-hmm. bu ma sañoon doo ci dugg ndax sëy bi baaxul mm-hmm. xam naa mu topp mbëggeelam keroog ba muy ñaani ji rakkam ak ñoom ñëpp a deman ak i xaritam ci yoonu Thiès wi ab ab ab camion bu taxaw dégg naa la la oto bi dugg ñoom ñëpp a faatu kenn génn ca kon mu mel ni sëy dañ koy xool ndax yonent bi moom moo ko waxan te sëy bul ko xool ci benn sëriñ war nga kaa xool ci juróom-ñaari sëriñ juróom-ñaari sëriñ nga xool na saa boo gisee juróom yëpp àndandoo doon ñëpp bokkandoo benn wax mm-hmm. xamal ni baax na ñett yi nag bu àndee te juróomi ànd rek ñett yi bàyyil ñett yi nga jël juróomi bu nee baax na baax na bu nee baaxul baaxul wante àddina mag ñi foofu la noroon mag ñi bu buñ daan tukki tukki bii sax jóge fi dem biir Dakar sax dañ ko daan xool ba xam yan sarax lan wan lañ ci war a def ba xam yan gàllankoor moo ci manaam wante fii ngay gis koo xam ne tey day takkub sëy rek ngir ak mbëggee rek dugg ci mooy waral ngay gis sëy boo xam ne dañuy sëy du mat weer sax jigéen gi faatu nga gis sëy boo xam du mat semaine góor gi faatu te nee naa la am na jigéen ñoo xam ne boo leen takkee dañ lay téeñi yàgg-yàgg am na góor ñoo xam ne bis buñ la takkee yàgg-yàgg dañ lay téeñi wutiwaat keneen kon na nit ñi di xool sëy yi tamit di ñaandu seen digganteeg seen borom kan ndax ñaandu sa digganteeg ñaari way denc nga ñaandu ci loolu dagan na li bon mooy ana yow ana man da nga bëgg cee ñaandu loolu moo xaraam wante daal li ma lay wax nan gën ci sëy bu baax a baax a daal nan gën a ñaan lu baax gën cee góorgóorlu dëgg la sëñ Cissé ne tey dañoo bëgg ay kayit kayit jafe leen lool ni ñuy def te ba jokkalante ak ba am ay kayit tey. waaw waa bitim réew moom maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di xam ni euh, wax dëgg yàlla ñu jar a jàppale ngi noonu man moom euh, damay faral di julli di leen ñaanal ndax koo ci dégganteel ku nekk rek yërmande ji muy wax muy fas yéene naa am ngir ñëw senegal ngir bokk waa Sénégal te koo ci dégg ku nekk tamit wax dëgg yàlla ay waajuram la lay njëkkee di la di di ñaan ngir ngir yàlla may ko xewal mu mën kaa teral mm-hmm. ànd maa ngi leen di ñaanal yàlla defal leen jàmm ba yaakaar gin am bitim réew suñ borom defal leen ko ñu ñëwaat ci seenum réew mm-hmm. ndax ñoom koo ci gis ku nekk réewam rek lay tiitaroo mm-hmm. wallahi alxasim wante képp koo xam ne nekk nga bitim réew ak uh, problème u bu la fa mën a dal boo ci jokkoo ak man incha allah am na yoo xam ne bu ma la ko liggéeyee du ma la wax dama lay tëjul du ma la wax yi dóor yi du ma la wax dama lay wax ni la nangam ak nangam laa la koy liggéeyal nga ne ma nangam ak nangam ñu juboo ci ma liggéey la ko incha allahu bu bu neexee yàlla bu ma la ci liggéey suñu borom dana ko saafara ndax man abu mm-hmm. ab jullit la ab taalibe la samay wax fu muy commencé incha allah fu muy daanale incha allah ndax lépp yàlla la wax ji tamit bu doon bu neexan yàlla du egg kon nag yàlla daa bëgg lool ndax damay dégg benn mag di ma wax ni mm-hmm. suñ borom daa bëgg ku koy kañ donte géwal daa bëgg ku koy kañ wante yàlla gën a bëgg ku koy kañ naa ko yaa fi nekk yow rek yaa jërë am yaa a wóolu loolu boo ko dee wax rek pour mu nungu la sa ñaan day yomb mm-hmm. wante am na noo xam boo koy bàkkoog moom daa fiir da lay ci nguuram gi rus loola mm-hmm. wante képp koo xam ne am nga problème kayit rek moo xam da lijjanti kayit ci ambassade wala moo xam këyiti tukki la moo xam tey jii ne këyiti ñibbisi la mm-hmm. ak këyit yu mën a nekk rek boo ci jokko man ci kàttanu yàlla am na yoo xam bu nu la ko liggéeyee dafa lay sarax suñu borom dana la ko may ci kàttanu yàlla bu dee du mën a sotti nag mm-hmm. dama naa la du mën a sotti mm-hmm. bu dee loo xam ne duñ ci ñaan dama naa la ah lii kan mënuma cee ñaan demal nga seeti nangam wala nangam ak nangam noonu la ni liggéey daal